c'est-à-dire que Sonko amul relation wu pouvoir pour exercer quoi que ce li mu bëgg mooy Sénégal changé Sénégal li koy changé benn idéal la benn projet boo xamante ne ça ne court pas de 2014 à 2024 ça a commencé à courir depuis les années 60 Sonko léeg la yore léeg boobu projet la boo xamante ne Mamadou Dia est passé par là Cheikh Anta Diop est passé par là beaucoup de fonctionnaires des dizaines de fonctionnaires on été radiés pour le projet monsieur Sonn projet bu parce que nit yàgg naa taxaw am lu mu bëgg mënu ko mu démissionné dem am lu mu bëgg mënu ko ñu faat ko am lu mu bëgg mënu ko euh, euh, ñu rajo ko et cetera et cetera donc nit yàgg naa sonn pour projet mais yàlla moo def aboutissement bi nekk ci loxo Pastef bi mu ñëwee ci loxo Pastef kii incarné Pastef mooy Ousmane Sonko mu nekk ni koo xamante pour moi c'est le meilleur profil pour nekk le président du Sénégal pourquoi parce que Ousmane Sonko tey Euh, ñi bokkuma ci ñu naan ay eh non le projet le projet le projet ñi ki nekk à la amul solo non pourquoi parce que président Macky Sall yoonu yokkate c'était un bon projet Idriss Seck a fait de bonnes propositions propositions par le passé mais gëmu ko parce que bu naa dañuy supprimer conseil économique social mu dafa dem après nekk président conseil économique social exemple mel noonu mën nañu ko jox mais ku mel ne Ousmane Sonko dafa am loo xamante ne moom la gëm am idéal di xeex pour loolu bu ñëwee ba fii moom mu jël projet bi ñu nag di ko faagaagal pour du nekk candidat mu jël ko teg ko ci ay loxo nit def seede yu rafet yi nga xamante ne def na ko ci moom c'est-à-dire que loolu. kenn ah, mënu ne noonu lii ak lii ak lii. et puis euh. je tiens pas te dire que Ousmane Sonko nii nii nii ko gëmee nii maanaam li nga wax c'est vrai gëm nañ ko parce que dañ ko xam parce que fam lu ñu xam si moom et puis dañ ko purgé dañuy liggéey ak moom pendant longtemps. donc nit ki soo ko xamee nag gis si moom ay valeur parce que président bi ñu ay stratégie ay doomu aadama gis muy voté amul pièce d'identité gis muy def forcing biir Pastef wanuñu loo xamante ne ëllëg bu nekkee président day def day day. waaye wax na ay wax yoo xam ne de buñ ko ko génneeloon en tant que président du ko neex. ki mu jàkkaar loolu waxul de mais dafay poser acte yoo xamante ne day poser acte yoo xamante ne. wax na ah, ay wax yoo xam ne non ki mu jàkkaar loolu ëllëg bu bu nee xale yi def leen nii. jaar leen fii buñ ko génnelee wax yooyu du neex. ki muy jàkkaar loolu. waaw ah. dafa poser acte yoo xamante ne tey su waxuloon loolu mën na am projet bi du egsi ba fii projet bi egsi na ba fii resté viable même sans lui am na candidat am moom mi ngi dund mi ngi en vie mi ngi en bonne santé macha allah il va faire que le projet va pa et puis Sénégal change.